mbokk yi xarit yu seen njëriñ TV bisimilah ñu dikk ak yéen ci li gën a fës ci yëglekaay yi recours yi ca conseil constitutionnel démb euh, mu nga meloon tulleeg maal mm. yenn ci ay candidats yi ñu tuddee les recalés yi démb nag mënees nañu wax ñi daj nañu dëgg ndaxte dem nañu sax ba kii di Ousmane Sonko Bougane Gueye Dany ak moom Mimi Touré bind ab leetar njiitu réew mi Macky sàll ngir nag mu dakkal processus électoral bi nga xam ne ñoom jàpp nañ ne dara jaarul ci yoon ci l'évidence ko tuddee les échos ñëwaat ci lettre boobu maanaam lettre soft la ko tuddee eh, ñoom candidat yi nga xam ni da ña ngay sàkku ci président Macky Sall ngir nag mu joxaat leen seen gëdd maanaam seen àq ak seen yellee am na yeneen i candidat yi nga xam ne itam ña ngay sàkku ngir rek ñu dàq bam set wecc yi les élections présidentielles ci bu ñu sukkandikoo ba tey ci les échos ci quotidien bi ba tey ña nga ñu yëgal nii moom Amadou Ba def na recours ngir nag kontar wala sax di réclamer candidature bu Bassirou Diomaye Faye ak kii Cheikh Tidiane Dièye Mon premier ministre bi jël yëpp nak déposé ko ci table sept sages conseil constitutionnel ci source a itam ñu fekkat fa premier ministre Amadou Ba Ñu xamal ne suñu natango yi mom Amadou Ba def na yeneen niru ci kii di Mame Diawo, Diao Abdallah Dionne ak kii di Aly Ndiaye ñi nek ay anciens frères d'armes Té nak mom Amadou Ba su moytuwul dina ñak soutien ci ñilé bu fekké jall na second tour ba tey bu ñu ci source a

Bassirou Diomaye Faye ak Cheikh Tidiane Dièye am na yeneen ni candidat itam ya nga xam ni dañoo jàpp ne seen àq ak seen yelleef dañ ko salfaañ Walf Quotidien ci wér gi moom la mu gis moo di ne rek lu jëm ci wàllu kii di mi Mimi Touré Bougane Guèye yi ak na ñu àndal ñoom guddal parrainage yi rek la bëgg maanaam coow li nga gën a gudd na gën a yàgg ñoom sax dem nañu ba ñuy wax ni la sàkku ci njiitu réew mi moo di rek ngir ñu randal élection yi wante lu

ba ñëpp mën cee teg seeni gët ci jamono jooju lay yor yor quotidien moo ngi jox kàddu maître Ciré Clédor Ly di avocat bu Ousmane Sonko moom nag nee na démb déposé nañ bi yoon ay documents yu mat sëkk ndaxte nag ay lañ lañuy bañ foofu lay ci conseil constitutionnel. ak keneen ki nga xam ne daf ñoo forcé boppam tey jii ci quotidien yi moo di Mamadou Moustapha Ba ki yore wàllu finance ak wàllu budget. lu jëm ci exécution budgétaire 24 mm. bi ña nga ñu xamal ni croissance bi ci atum ren gi lii daañu ko yok ba ci 9 point de l'indépendant la ko gissé ministre bi yore wàllu budget fekkat nañu ko ci direct news lé suñu natango yi ña nga ñu wax ni Sénégal nak mo nga ci yoon bu baax bi ci wàllum yokkute ndaxte projet bu ñu tuddee PAP 2A di plan d'action prioritaire atum ren gi lii gis nañu né nak na ci niveau yu jéggi wàllu koom-koom budget 2024 bi ci atum ren gi gis nañu né nañu ko wekk ci wàllu mbay meeg càmm gi daañu fexe itam ba lépp luy croissance ñii di sénégal yi mën ko yëg ci seen biir di kàddu kii di ministre Moustapha Ba ba tey ci yëglekaay bi di ñëwaat ak yéen ci wàllu recours yi l'observateur moom gis na ni recours yi yenn ci ay candidats def nañu ko ñoom sax gëmuñu ko ku ci mel ni Karim Wade wala sax Thierno Alassane Sall ak kii di Amadou Ba ci wàllu yoon lañu ñëw ak yéen libération oustaz Assane Seck la xëyee tey jilee suñu natango yi ña nga ñuy xamal ne moom oustaz Assane Seck lu jëm ci wàllu dernière demande bi nga xam defoon na ko ngir am liberté provisoire dañ ko ko bañal loolu tax na ba rekk suñu na naatangoo yi di wax ni moom oustaz Assane Seck dafay desandi ci kaso bi te sax dossier ba ngi ko yóbbu ci parquet nag mu indi ci kàddu gu mujj ak keneen ki nga xam ne itam suñu grand frère yi ñëwaat nañ ci moom moo di chroniqueur bu Walf bi di Pape Sané moom na ñoo xamal ni procureur dafay sàkku ci moom ngir rek ñu def ko mandat de dépôt te sax dafa kontar li ñu tuddee contrôle judiciaire bi nga xam ne moom lañ ko fëgg ni ki dee moom dossier bu Pape Sané ña nga ñu xamal ne yóbbu nañ ko ci chambre d'accusation bi nga xam ni ci alxamis kii la te war a yëg ñu joy xale yi wi ak wàllum sport kan 2023 foofu lee ca diwaan bu Côte d'Ivoire Sénégal Cameroun ñu koy xaarandi ci aljuma ji suñu gaynde yi naka la ñuy def ba mën a affronter gaynde yu Cameroun suñu naataangooy stade ña nga ci ñëwaat lan moo nar nekk euh, solution bi ci kanamu Cameroun noonu lañu ko laaj euh, suñu naataangoo yi ba tey ña nga ñëwaat ci Coupe d'Afrique des Nations euh, di wax ni suñu gaynde yi dëgg leen di xaar dañ ci def très attention ndaxte Cameroun bet blessé la te ku maywul dina génn fa la neexul lu ci am ba am rek moo di ñun ba tey dañu ñaanal suñu gaynde yi ñu am ndam lu rëy mi ngoog mbokk yi xarit yi ñu yend ak jàmm ci seen njëriñ TV